nit ki bu jëmoon kolobaan mooy mazhabam bu jëmoon ci géej gi géej gi mooy jëmuwaayam loolu ci baat maanaam bu yaatu bi waaye bu ñu ko indee ci wàllu fiq wàccee ko foofu man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla namm ci moom yiw daf koy defal ak dégg diina faqih moom du la wax lan nga wax dafa naan la loo jublu ci li nga doon wax amma genn wàllu faqih na moom dafa naan la yow loo wax dégg diina googu laa wax ne dafa ëmb mboolem ay wàllam ci li nga xam ne moom la diina indi jabar ji ne damay génn mu ne ko génnal rek seet génnal rek seet waaw génnal génnal génnal boobu léegi ndaw si bu génne ndaw si day génn moom moo ko jox ndigal su ngeen gisee suñu modèle yu rafet yi war ngeen xam ne fenn rek ngeen ko mën a amee c'est chez Top Création Parcelles Assainies unité 12 si wetu camp sapeur pompier yi am na simple am na broderie costume traditionnel ba si grand boubou moo xam ne góor wala di jigéen ngay mag wala ndaw kenn ku si nekk am nga sa wàll fii si Top Création ndax top création mooy marque bi méngoo ak jamono te di dox ci innovation l'élégance la classe et la qualité au meilleur prix suñu commande ci fépp lay jóge ci biir Sénégal waaye rawatina sax ci bitim réew kon yow mii di ma seetaan soo bëggee ci modèle yu rafet yi wala sax ci modèle yu dàq yi gaawal gaaw nga woote ci 77 614 57 50 76 742 72 60 Top Création est la marque de l'élégance taar dafa bokk ci àdduna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 mbokku téléspectateur Fafa TV yëpp ak fépp fu ngeen ñuy mën a jotee moo xam ci biir réew mi la waaye rawatina si bitim réew ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ginnaaw bi ñu sante suñu boroom si ay xéewalam yu ñu mënul lim di julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa xam ngeen ni saa su nekk dañuy am mbegte di teewaat ak yéen ci suñu jotaayu jàngat bii nga xam ni saa su nekk dañ leen koy indil comme ni ngeen ko xamee rek jotaayu jàngat li ko tax a jóg mooy jàng ak jàngale waaye di fàttali suñu bopp di fàttali suñu mbooleem internet yëpp ay tomb ci suñu wàllu diine si loolu saa su nekk jotaayu jàngat dafay tànn ay thèmes yoo xam ne dañuy jàpp ni thèmes yu méngoo ak jamono la waaye tem yu mat fàttali la si loolu si lañ tànnee benn tem thème bi mooy lan lan mooy fiq ci islaam ak xam-xamam bi ñu tànnee thème boobu dañoo ñëw gaaral ko suñu wayjur suñu sëriñ muy al imaam Aboubacar Sall al imaam Aboubacar Sall comme ni ngeen ko xamee moom moom mooy président commission des affaires sociales bu mouvement al Falah waaye itam moom mooy imaamu masjid Omar ibnul Khattab bi nekk fii ci parcelle unité set dañ koy ñaanal suñu borom dolli ko xam-xam. dolli ko wér ak wérle dolli ko kàttan bàyyi ko fi ba ci kanam ñuy gën a mën a jëriñu ci xam-xamam al imaam ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay dalal suñu biir jotaay di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi ñu soog a dugg ci suñu liggéey إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور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 biti biir réew mi walla biti biti réew mi ñu ngi leen di nuyu di ñaan jàmmi yàlla ak yërmandem ak barkeelam yàlla na nekk ci yéen alhamdulillah jazakumullahu xayran al imam ci nuyoo yooyu al imam comme niñ ko waxee rek ñu jotaayu tey ji dañoo bëggoon nga jàngal ñu xamal ñu lan mooy fiq ci islaam al dégg nañ benn xadis buy wax man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin ginnaaw bi nga ñu xamalee lan mooy fiq ci islaam al imam bëggoon nañ nga jàngatal ñu xadis boobu alhamdulilah baatu al bu dee ci simple lakku arab moom mooy dégg waxuma nag bu boobaa déggug nopp waaye li ñuy wax déggug nandité dé déggug compréhension dégg gu xam ne gu borom dégg mbir mi nga xam ne moo nekk ci kanamam moo xam bu boobaa euh, lu ñuy askane diina la wala lu ñuy askane leneen la lu mën a doon day fekk ne nit ki xam na ko xamin woo xam ne dégg na dëggantaanu jubluwaayu galanu euh, wax jooju loolu moom mooy fiq loolu nag buñ ko xoolee ci xadis bi yontu bi sallallahu wax ne képp ku yàlla nar ci moom yiw daf koy defal fiq fi diin yu faqihu fi diin mooy daf koy defal ak dégg diina daf koy defal ak dégg diina bu boobaa baatu dégg diina boobu Euh, gën na yaatu genn wàll ci euh, diina dinañ ci ñëw waaye euh, dégg diina bi mooy li nga xam ne moom la yàlla wàcce ci yónentam ak li nga xam ne moom la yónent bi leeralee li ko yàlla yónni loola ci wàllu gu mën a jëm ci xam ko xamin wu wu leer wu mën a jottali ni ñu jëriñoo ko loolu day nekk fiqh fi diin Euh, su may joxe misaal ci wàllu gu xam ne bu ñuy wax fiq euh, ci suñ jataay bi amaan na ñu bëri duñ ko may xel mooy wàllu tawxiid moo na wàllu tawxiid wàllu pas-pas am na leen boroom xam-xam yi ñu ngi ko tuddee al fiqhul akbar al fiqhul akbar fiq bi gën mag kon fii danañu xam dëgg-dëgg xam-xam ak dégg xam-xam boobu naa boobu li mu ëmb mooy lépp lu xam ne rek nit ki daf koy xam de ko peeg comprendre ko bu baax a baax mu nekk ci biiram loola mooy fiq suñ ko wàccee ci diina muy première étape mooy bu boobaa li diina ëmb yëpp li diina ëmb yëpp te mooy risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki xam ko day tudd ba tey fiq fi diin boo ko indi woon ci wàllu pas-pas nga dégg ñi ko tuddee al fiqhul akbar ba tey day euh, firi maanaam dégg ak nànd dëgg-dëgg lii pas-pas bi nga xam ne lu nit di jàng di ko xam moom moo ko gën a rëy moo ci gën a rëy te mooy xam borom bi subhanahu wa taala ak bëgg-bëggam ci jaamam yi ak bañ-bañam kon ma xadis bi maanaa bi mooy li ma wax ne wa man yuridi man yuridillahu bi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla namm ci moom yiw daf koy defal ak dégg diina daf koy defal ak dégg diina dégg diina googu laa wax ne dafa ëmb mboolem ay wàllam ci li nga xam ne moom la diina indi loolu mooy euh, maana yu faqihu fi fii euh, du nekk maana bi nga xam ne Euh, moom la ñu miinee baatu fiq te da ci ñëw léegi incha allah. macha allah jazakumullahu ay xayran al imam ci leeral yooyu. waaye al imam dañuy faral di dégg léeg-léeg ñu ne xam-xamu xadis wala xam-xamu miiras wala xam-xamu leneen al imam liñ la bëggoon laaj mooy ndax am na li ñuy wax xam-xamu fiq ak lan mooy wàccuwaayam ci biir diine lislaam. barakallahu fi euh, xam-xamu fiq. Euh, xam-xam la bu xam ne suñ ko doon définir dañu naan mooy xam-xam bi nga xam ne mooy leeral àttey jëf yi nga xam ne doom aadama daf koy jëf ci dund bi euh, moo xam jëf yooya jëf yi aju ci digganteem ak boromam la walla jëf yi aju ci digganteem ak ay moromam même bu boobaa miraas moomu nga tuddoon dafay daal di mën a dugg ci biir euh, xam-xamu euh, fiq su ko defee xam-xamu fiq boobu man nga jàpp ne bu ñuy xamle lépp li nga xam ne yàlla def koo sant jaam bi mu war koo def wala mu sant jàmbi mu war koo bàyyi te ñu tuddee ko tere loola euh, la koy leeral xam-xam boobu di ko leeral muy ay atte yu xam ne ay jëf la ci def ak bàyyi xam-xam bi leeral wàllu googu moom la tuddee fiq bi maana nit ki ci jullim fiq moo koy leeral fiq moo koy wax ni ngay julli balaa ngay julli nii ngay jàppee waaye même ba ngay julli ji waxtu wi nga war a julli ak waxtu wi nga warta julli ni ngay jullee ba julli ga wér ni nga xam ne boo jullee boo ko jullee wut julli ga du wér li nga xam ne mooy yàq julli bu julli demoon ba yàqu la koy defar euh, su fekkee ne euh, am na li jaxasoo ci yow ci julli gi noo koy defaree kon bu ñu duggeelee baatu fiq ci julli moom mooy kiy saytu laboratoire bi saytu mboolem li aju ci julli ba tax nit ki jullee ko jullihin wu xam ne jullihin wu wér lay doon ngeen bàyyi xel baat bi ma wax jullihin wu wér diggante julli gi wér na ak julli gi nangu nañ ko bokkul julli gi wér na loolu la fiq di saytu loolu la doomu aadama bi taxawee loolu la nit ñi mën a seede waaye nag nangu ga ak ñàkk ga nangu loolu ci yàlla la dellu subhanahu wataala foofa génn na doomu doomu na doomu aadama ni ma waxee noonu ci julli toxal ko ci asaka fiq mooy traité asaka nan ngay génne asaka d'abord ban alal jan alal la asaka war a génn alal jooja nan lay toll ba asaka war caa génn bu fekkee toll na noona ban diir la war a am ci loxol borom ba asaka war caa génn bu fekkee asaka daf cay génn ban pourcentage la ca asaka di génnee bu génnee itam ci yan loxo la war a dem nuñ koy saytoo su fekkoon ne gàllankoor am na ci génne asaka googa nañ koy nañooy teretee wàllu ga ñuy diggaale ak ka bañ a joxe asaka yii kon ba te euh, fiq mooy taxawee loolu demal noonu ci koor lan moo lay saxalal euh, weeru koor lan moo lay saxalal commencement hu koor ci bis bu nekk ak jeexu kaayam lan mooy baaxal koor gi lan moo koy bonal maanaam lan mooy tax koor gi wér lan mooy tax koor gi wéradi su wéradi amee si koor ga nuñ koy réparé ba mu tax mu tegee ci yoon euh, su fekkee ne ay daan daf ci war daan yenu muy demee loolu fiq ma koy traité ni ma waxee loolu yóbbul ci aj yóbbul ci sëy sëy mooy euh, fiq mooy lijjanti mbiru sëy ak ya ci aju donte dañ koy tuddee ay muamalaat jëflante ak yi mel noonu waaye terewul fiq moom mooy kii saytu wàllu googu kon daal tënk bi ma waxoon ca départ lu ma détaillé détaillé mënu ma ko romb mooy fiq fiq mooy xam-xam bi nga xam ne day saytu attey jëf yi feeñ de ko delloo ci seeni dalil seeni référence ya nga xam ne moom la diina soxla kuy tegab àtte nga teg ko ci alhamdulilah jazakumullah xayran al imam ci leeral yu am solo yooyu nga ñu leeral ci lii nga xam ni moom mooy xam-xamu fiq waaye al ba tey bëggoon nañ xam lii nga xam ni moom mooy fiq maanaam ban wàccuwaay ak ban njëriñ la am ci biir lislaam euh, amul weerante ne suñ la ne jëf yii doomu aadama di jëf lay leeral ay atteem fañ koy teg ba mu baax wala ñàkk ko faa teg mu ñàkk a baax lii dafay wane euh, benn warugar benn mënta ñàkk benn obligation ci bépp jullit mu war a xam dëgg-dëgg xam-xamu fiq ci lépp lu muy yëngatu loolu moo tax boroom xam-xam yi dañu ne amaan na peek mboolem bunti fiq yi eh, du ni ci ñu bare bare bari ci doomu aadama yi waaye nag bépp doom aadama am na lu manta ñàkk ci moom lu mu war a xam ci fiq mooy la muy baaxalee faratay farata yi nga xam ne kenn mënu ko caa wutu moom moo koy def mu baax mbaa mu ñàkk koo def du baax waaye keneen mënu ko caa remplacer yooya moom pour ñu xam da fiq mooy ne nit ki fiq daf koy may gépp jaamu yàlla gi muy taxawee mu teg ko ci kaw xam-xam bu ko leer ni nii la yàlla bëggee mu defee ko nii nii la yonent bi sallallahu alayhi jàngalee mu defee ko nii loolu dafay nekk euh, soxla si doomu aadama ci wàllu googu lu raw soxla si doomu aadama ci lekkam ak naanam lu tax gannaaw dañu ne fiq mooy liy xam-xam le attey jëf yi nga xam ne doomu aadama def koy def ti teg ko ci ay cëslaayam kon lu mu ci xamut bi maanaa kon day tëñax tëñaxi te yàlla duñu ko jaamu ci làmbatu duñu ko jaamu ci sikki sàkk wa bittaali waru gar la ci bépp doom aadama gën caa néew farata yi nga xam ne dafa tegu ci kawam loolu nag ko waxee dana am koo xam ne dafa yaakaar ne dama ci jublu ak julli ak koor ak ajag yi mel noonu du loon rek waa ji nga xam ne dafa bëgg métier wu commerce kooku waru gar la ci moom mu jàng fiq euh, tijaara euh, ba xam lan la fiq leeral ci kuy def commerce la dagan ca moom ak la daganul ca moom la jub ca moom ak la dëng la wér ak la wér di ila axiri kooku manta peeg lépp waaye lii mu tànn moom daf ko daf ci war a am fiq bi maanaam ndaw ndaw li nga xam ne dafa bëgg a takk soxna mais kooku euh, lu mënta ñàkk la mu jàng euh, attey fiqam ci nu muy yooree sokhnam nu muy yooree këram parce que l'islam euh, amul lu mu seetaan lu mu saytuwul ci nu ko doom aadama bi di dundee kon kooku mënta peeg lépp waaye fiq zawaaj naka noonu fiqhul usra nu muy yooree famille am nu mu koy seere loolu war na ko jàng ba xam ko bu baax a baax kon faida fiq da nga koy fekk ci ne euh, léppi doom aadama yi la peeg waaye nag doom aadama yi yëpp mënuñu koo peeg waaye jëmm ju nekk nag la mu nara jonjoo ci lislam la mu nara jonjoo ci dund bi na xam ne dund bi amul widd bu xam ne lislaam waxut ko boo koy def nii nga koy defee te loola mooy attey jëf yi feeñ yi nga xam ne mu ngi koy taxawee loola moom war na ko amul xam-xamam loolu na bu boobaa mooy fiq ci mbir moomu alhamdulilah macha allah al imam ba tey rek al imaam si suñu waajal suñuy jotaay yi euh, jamono yee ci ginnaaw dafa am benn borom xam-xam bu mën nañ wax ku ñu ràññee ma ko doon laaj ci wàllum thème bi léegi ba ma mujj si laaj bu mujj bi ma ne ko ndax mën nga ma wax ci suñu boroom xam-xam yi ci Sénégal kenn koo xam ne mën nañ ne kii kat faqih la mu ne ma kooku de ki ma ci yaakaar mooy al abu Aboubacar Sall ma ne alhamdulillah kooku kat moom moo ñu war a defal jataay bi kon al imam ci laaj boobu rek lañ bëgg def lañ la bëgg laaj ne la lan mooy daje ci doomu aadama ñu ne kiikat kat faqih la. alhamdulilah xam naa li may njëkk a wax mooy daju leen ca dajoo ba daju leen. ca dajoo ba ka leen tegtal dafa foog te lam foog amut dafa foog ne Babacar sàll mën nañ ko askane ab faqi waaye loola foogare njuumte la te nag foog moom noonu la mos a mel euh, foog léeg-léeg foog lam foog am léeg-léeg mu foog lam foog bañ am waaye bu boobaa loola dugg ci buntu fen Euh, maanaam nit ki la not ca njab njortaam mu wax ko duñ ko ko askanee fenn waaye dañu naan euh, dafa dajut ca dajoo ba kon foofu laay njëkkee alhamdulillah amma waaw ngeen ñaanal ma yàlla def ñu ñu nekk faqih euh, amma borom xam-xam yi leeral nañu yan mbir mooy daje ci nit ñu mën koo tuddee faqih euh, dañ koo tënk ci juróomi tomb euh, ñu ne nit ki ngir mu mën a nekk faqih fok la jiitu mu mokkal téere yàlla bi euh, mu xam téere yàlla bi xifzan wa fahman xam téere yàlla bi xamuk mokkal ko comprendre itam contenu bi loolu manta ñàkk ci ki nga xam ne dañ ko askane ne faqiix la ñaareel ba fokk mu xam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ne xam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii nag jubluwuñ ci rek mu xam xadis yu wér yi déedéet euh, day xam xadis yu wér yi yu rafet yi comme ni ñu ko waxee xadis euh, saxiix ak xasan waaye mu xam itam même xadis daif ak mawdu lu tax parce que ci loolu lay mën a sukkandiku ba lu ñu askanee diina lañ ne mooy dalilam mu mën a saxal ne lu wér la wala mooy dalilam mu mën a saxal ne lu wér di la euh, am na téere bu bu xaw a siiw su may boo sax ma bu siiw euh, bu xam ne ñu bari bàyyiwuñ ci xel te téere boobu dafa dimbale buntu boobu lool mooy buluuxul maraam bu ibnu xajar daf ko tuddee buluuxul maraam fii adillati al ahkam nu nit ki jotee càkkutéefam ci tegtali atte yi foofu ibnu xajar boo xoolee téere boobu indi warluwut ci ne xadis bu wér lay indi bu wér ak bu wér ak bu dagg bu mursala yëpp lay indi lu tax daf la bëgg a wax ne nit ñi seeni la ci atte yi ñuy wax lii la atte yi ñuy wax nangam ak nangam lañ ca deliloo lii la attem nangam ak nangam lañ ca deliloo lii la moom lim la warlul mooy nit ñi lañuy wax ak ci seeni jëf yañ ca tegtaloo mu tegal la ko léegi nag wax la itam xadis boobu lu mel bu wér la bu wéradi la Euh, buñ sos la wala ila axirihi kon euh, loolu moo tax borom xam-xam bi ñuy wax ñaareelu tomb bi nga xam ne faqih fok mu làmboo ko mooy xam sunna ci hadis yu saxiix ya yu xasan ya yu daif ya yu mawduu ya ba mën tebbat la war a des ak lañ war a sànni boo mooy ñaareelu tomb bi ñetteelu tomb bi al ijma lu borom xam-xam yi dëppoo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne laa tajtamiu ummati ala dalaala sama xeet lu ñu dëppoo ci réer lu ñu dëppoo ci cànkute lu xeet bi dëppoo euh, loola mooy dëppoo loola dafa bokk ci référence su diina comme ni hadis nekkee référence comme ni Qur'an nekkee référence ijma boobu nag euh, jamono bu xam ne bu ñu ne imna eh, ijma moom kenn weerante wu ne ijma la mooy jamonoy saxaaba yi saxaaba yi lépp lu ñu dëppoo loola ak dëppoo la ci lislaam amul weerante eh, gannaaw dëppoog saxaaba yi nag man na nekk dëppoo gu xam ne dëgg la danañ ko tuddee dëppoo na ñëpp ci borom xam-xam yi dëppoo nañ ci tax bu ñu wax dëppoo xeer bi itam ña xam diina moo tax ñuy wax waaye du eh, dëppoo démocratie nga xam na nu mu gën a bëree rek waaye ña gën a xam te ñooy ñay fasaka fecci ñooña la ñu dëppoo amuñ ceg wuute loolu ijmaa la tudd gannaaw gi dafay am nag ijmaa bu xam ne nañ koy mën a tuddee dëgg-dëgg ci maslaa mooy masala la bu xam ne xamuñ ca wuute boobu duñ mën a wax ne duñ mën a dogu ne xeet wi yëpp dëppoo nañ ci waaye mën nañoo dogu ne xamuñ ca wuute ci xeet wi loolu itam bu boobaa dana mën a nekk euh, dellukaay moo tax benn euh, kii benn borom xam-xam dafa doon tënk mu ne ijmaa daal bu ñu ko mën a bu ñu ko bëggee wax dëgg-dëgg mooy aljamaa allati lam tuxaalif aljamaatu al ula jamaatu saxaaba mboolo ma nga xam ne wuute wu ak njool mbooloo mu njëkk ma te mooy mbooloom saxaaba yi ñooña ñooy ak mbooloo gi nga xam ne la ñu dëppoo dellukaay la ci diina Euh, ñeenteelu point bi mooy fokk dégg làkku arab wi nga xam ne ci lañ tënk ñaari waxyu yi di alquran ak sunna euh, nit ki sarta la ci mu mën a nekk faqih fekk mu xam làkku arab xamin wu xam ne dana ko permettre mu mën a dugg ci laboratoire alquran génne ci ay atte laboratoire hadis génne ci ay atte ngir dégg gi mu dégg arab ba pare nag wéet ko ca déggin wu wi nga xam ne ña jiitu woon ca lislaam noonu la déggee woon alquran jooja noonu lañu ñu déggee woon hadis hadis yooyu kon euh, dafay jafe lool nit ki mën a bay cib tool te fekk yóbbuwaale wul ileur ileur bi nag mooy làkku arab bi juróomeel bi mooy maqaasidu sharia euh, xam jubluwaayu sharia ci mbir yi ba nit ki ba muy euh, teg ab atte ci mbir da ca def fatwa wala da ca war a jëfe wala di war a digal nit nu ce cay mu xam ne nii lii kat jubluwaayu sharia ci lii mooy lii kon nag su fekkee ne nit ki defee na lii nii kon dana dëppoo ak la sharia jubluwoon ca ba muy santaane la sharia jublu woon ca ba muy wàcci yàlla subhanahu wa taala di diggal jaam yi ñu war koo dundu euh, moo tax euh, ibnu qayyim rahimahullah di wax ne euh, diggante faqih ak nisfu faqih mu ne faqih moom du la wax lan nga wax dafa naan la loo jublu ci li nga doon wax loo jublu ci li nga doon wax amma gen wàllu faqih na moom dafa naan la yow loo wax waaw yow loo wax ci su ma ci joxoon misaal bu gàtt rek ci wàllu fase ci wàllu fase nit ki mën na wax baatu fase bu xam ne euh, fase du tàbbi ca euh, kàddum googa lu tax dafa dajeeg faqih mu ne ko sa kàddu gi bi koy wax loo ci jublu mu ne ko man ba may wax lii lii laa ci jublu lii laa ci jublu ma jox la misaal euh, waa ji wax jabaram ne ko boo génnee kër gi ma fase la boo génnee kër gi fase jabar ji ne damay génn mën ko génnal rek seet génnal rek seet waaw génnal boobu ñu ne léegi ndaw si bu génne ndaw si day génn moom moo ko jox ndigal mu génn kon fase na waaye boo dajee faqi mu ne la loo ci jublu nga ne ko jubluwuma ci jox ko ndigal na génn kër gi waaye dama ci jublu euh, menacé ko dama jublu menacé ko xëbal ko pour mu bañ a génn kon euh, maqasid sharia mun ta ñàkk ci mbir euh, su fekkee ne nit ki dafa war a nekk faqih yàlla nañu yàlla def ñu bokk ci fuqahaul umma amin ya rabbal alamin macha allah al imam loolu leer na ci lii nga ñu xamal maanaam condition yi nga xam ne moom mooy tase ci doomu aadama bu ñu mën ko wax alfaqih waaye al imam ba tey comme niñ koy déggee rek léeg-léeg dañuy faral di dégg ñu ne fiqhu malik wala boog madhabu malik wala ba ci euh, li ñuy masaahibu fiqhi mooy mooy mooy mooy madahibul arbaa al li ñu bëggoon laaj rek mooy wuute yooyu lan moo ko indi alhamdulilah euh, bi nga tuddee masaahib yi daf may delloowaat ca suñ tomb ñaareel ba ci dëgg-dëgg suñu jataay bi baatu fiqh luñ ci jublu parce que masaahib yi saytu wuñu wàllu pas-pas da ca wuute wàllu pas-pas euh, reeni diina dañuy wax usulu diin euh, reeni yi diina samp yooya masaahib yi amuñ ca wuute waaye masaahib yi li ñu am wuute mooy détails yi moo tax borom xam-xam di ko tuddee al ahkaamul far'iyya atte yi nga xam ne ay détails la waaye borom xam-xam yemuñ foofu dañu ne atte yi nga xam ne détail la te wuute jaadu man caa am wuutu wuute man caa am googa dañ ko tuddee ne yërmande yàlla ci xeet wi ba mu leen tënkul rek ci benn jataŋ bu xam ne da ngay nekk ci jataŋ bi baax le woon mbaa génn ca bon le foofu moo tax euh, hadis bu wérut hadis bu wérut laa koy tuddee bi ñenn di tegtaloo ne bàyyi leen nit ñi seen wuute yi dafa jaadu parce que euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ixtilaafu ummati rahma déet hadis boobu wérut hadis boobu wérut te contraire ba baaxut ndax bu fekkee ne wuutee xeet wi yërmande la bu boobaa seen ak dëpp seen ak dëppoo kon mbugal lay doon wala déet ida kaana ixtilaafuhum rahma fa ittifaaquhum niqma kon loolu du walaabal waaye fi nga xam ne mooy euh, wuutee ci rahma la mooy al ahkaamul faraiya atte yi nga xam ne ay détail la euh, déggin man caa wuute fekk du laal laal benn yoon baasu pas-pas du dellu laal benn yoon reeni diina yi nga xam ne e, nit ki dafay gëm baa mu ñàkk gëm loola boroom mazhab yi amuñ ci wute bu nee nag pratique bi waxuma ne am nañ ca wuute dama naan dañ a war a am wuute boroom xam-xam yi dañoo leeral sabab yooyu yu bari la waaye bokk na ci xadiis bi ñëw ci waa ji ñëw ci borom xam-xam bi ci ñëwin wu mu wéree fa moom te xadis bi aslan yeggut ci beneen borom xam-xam bi problème xew na ki nga xam ne xadis bi wér na fa moom mu appliqué xadis bi ki nga xam ne jotul sa xadis bi faf moom mu dem ci ak comparaison diggante xew-xew bi ak yeneen dalil yi nga xam ne gën nañoo jege wante ak moom ci euh, gisinam moo xam dalil yooyu ci aaya la wala ci xadis la loolu mën na jur wuute xadis bi mën na ñëw sax nag ci keneen ki ñetteel bi waaye na ñëwut ci moom ci yoon wu wér ñëwut ci moom ci yoon wu wér kooku moom itam dafa naan man kat au lieu ma fiy jëfandikoo xadis bu wérut naa jéem a seet leneen lu xam ne dana dëppoo ak xew-xew bi ma wàccee ci àtte bi te bañ a jëfandikoo xadis bi wérut bi ndax du ma sañ a askanee ne yonent bi la jógee euh, mu am sax nag benn xadis bu xam ne euh, benn daraja la waaye borom xam-xam yi seen bopp am ci wute mooy lan euh, li ñuy tuddee xadisu mursal xadisu mursal buñ ko waxee mooy xadis bu xam ne taabii dafa ne yonent bi nee na Euh, lu tax ndax dañu naan euh, taabi'i tuddut euh, saxaabi bi mu ko jëlee e bu ñu wóoroon ne tur bu ñu wóoroon ne rek moo fi nekk kay amul problème parce que xam nañ saxaabi yi ñoom ñëpp dañoo wóor dañoo wér waaye nag problème bi mooy ndax taabi'i bii na yonent bi nee na ndax amul lu dox digganteem ak ab saxaabi wala amu fa loolu la ñuy tuddee xadis mursal ci gàttal hadis boobu dafa am ñoo xam ne carrément dañu d'accord ne lu ñuy sukkandiku la ci euh, atte euh, maanaam dañ koo considéré euh, def ko mu nekk référence xujja am ñu xam ne dañu ne déedéet matul xujja am ñu xam ne dem nañu ba yegg sax ci biir xadis mursal ñu tibbaat ne xadis Saïd ibnu Musayyib moom xujja la waaye sa mursal nangam foo fii ba tey wa nekk na wuute beneen wuute bi te muy bu war a am mooy xadis bi dafa ñëw yanu ñaari maana kii déggee xadis bi nii kii déggee xadis bi na le te fekk benn xadis la kenn ci ñoom amul yéene wuute ak yonent bi sallallahu alayhi sallam euh, bu ma ci joxoon misaal ma bu xam ne mënoon naa koo tuddee sax ne mooy ndeyu wuute fuqaha yi mooy ci xaswatu ahzab bañ ca bàyyi ko Euh, war a dem bani euh, Xurayza ci yahud yi yonent bi sallallahu dafa ne képp ku xam ne day dégg ndigal di topp bu mu julee tàkkusaan furut ci bani Xurayza genn kàddu la wala déet dem nañ ba ce yoon waxtu tàkkusaan jot ñii ne yonent bi kat bi mu ñëwee wax bu leen julee tàkkusaan loolu ci bani Xurayza Euh, ñaax ñu ci gaaw a départ dem la ci jublu waaye jubluwut ci bu waxtu jotee bu ñu julli ñoom ñu julli ci yoon wi ñeneen ñene déet yonent bi dafa noon bu ñu julli tàkkusaan bu dul ci bani Qurayza kon duñ ko jullee fu dul ci bani Qurayza ñooñu gannaaw gee lañ julli ji tàkkusaan ci bani Qurayza wax ji jot si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yeddut kenn ci ñaari groupe bi kenn ci ñaari groupe bi kon benn texte ki ko wax ngi dund ñaari déggin am ci ku nekk appliqué na mu déggee ka ko waxoon yeddut kenn ci ñaar yi kon façon détail yi wuutee ci yu walaabal la euh, du masala bu xam ne ma du tomb bu xam ne jataay mën na koo traité waaye maa ngi delloo képp ku ci bëgg lu fees dell xolam téere ibnu taymi rahimahullah bi mu tuddee rafal malaam an an al aimati al teggi yeddaange teggil yeddaange suñu njiit yu màgg yu bëri xam-xam yi teggil leen yeddaange foofa la mu ca joxe ci ay exemple yu xam ne dana nekk sabab gaa yi wuute ci ma delluwaat atte yi nga xam ne dafa aju ci détails yi waaye atte ajuwut ci pas-pas yi parce que bu aju ci pas-pas yi rek biddaa ak lu biddaa day daal di dugg waaye ci détails yi jëf yi la aju bu boobaa dafay dellu ci e, sabab yu bëree bari te nag du tax du tax ñoom ci seen bopp ñu fénqaloo ndax boo xoolee daanaka kenn ku nekk ci ñoom ci ñi gën a siiw jàngee na ca keneen ka euh, xanaa imam malik lañ mënta wax jàngee na ci abu xanifa ndax imam malik génnul madina waaye shafii jàng na ci imam malik ahmad jàng na ci euh, shafii yi kenn ku nekk ci ñoom dafa joxoon gëdd morom ma ci dayo bu yaatu yaatu kon ay déggin la woon yoo xam ne dafa walaabal nit ki déggee ko walaabal mu jaamoo ko yàlla walaabal sax nag déggin wi nga xam ne moo ko convaincre du dagan mu ko fay bàyyi di eh, dem ci dégginu keneen waaye nag yooyu yëpp yaatug dënnug lislaam la ñaan yàlla mu nangul ñëpp amiin yaa rabbal alhamdulillah al imam ginnaaw bi nga ñu leeralee loolu nga xam ne moom moo am ci wuute ci madahibul arba Imaam bëggoon nañ la laaj tamit ndax jullit bi mën na tànn benn ci ngir yooyu ba pare ni mankat mën naa doylu ci ngir bi leneen lu ma gisati feneen sax doyloo naa ci ngir bi ma tànn. alhamdulilah euh, su ma ko gàttalee damay wax ne dañuy séddale ko ci ñaari wàll euh, genn wàll gi ki ñuy tuddee al mujtahid keneen ki ki ñuy tuddee al aami yi al mujtahid mooy ki nga xam ne yegg na ci niveau xam-xam fu mu a duggalee boppam ci géej gi ngir génnee ay or ya fa nekk ak ngalam ya fa nekk génneel ko boppam di ko jër jëriñoo di ko mën a di ci mën a séddee ñeneen su ma ne géej gi géejug alquran ak sunna laa si jublu maanaam moom yegg na ci xam-xam lu ko yàlla maye moom ci boppam mën na saytul boppam texte yi pour génne ay àtte bu dee ku xam ne yegg na ci niwo boobu ki nga xam ne xam na dalil yi xam na seeni wàccuwaay moo xam ci alquran wala sunna xam na ijmaa bi ñu doon wax sànq dëpp boroom xam-xam yi euh, xam fatawa saxaaba yi diggante euh, fatawa ya nga xam ne saxaaba yi dañ caa déggoo wala dañ caa wuute walla yu ni mel kooku du dagan mu fay teg loola na ñum dem di nekk al topp ci keneen ne lu di wax rek loola laa wax kooku euh, ndax euh, teg sa xam wala ma ne leem sam xel nekk ci gannaaw diw kooku la ñu tuddee almuqallid topp ndoorkat borom xam-xam yi dañ ne topp ndoorkat du borom xam-xam topp ndoorkat du boroom xam-xam ki mën a dellu ci dalil yi kooku du dagan mu bàyyi la mu xam ca dalil ya dem ni topp ci gannaaw diw wala diw waaye nag ndax ñoo ñooy ñi gën a bari ci xeet bi tontu mooy déedéet gannaaw nag ñi gën a bari ci xeet wi ay awaam lañu euh, nu ngeen koy waxee ci seen làkku Sénégal euh, citoyen lambda <laughs> euh, ñooñu ku leen ne seeni jëf dangeen koy delloo ci dalil yi xoo xóotal leen seen bopp génneel leen seen bopp demal seen yaa leen bëgg a sànq loolu nag daw na dal na ndaw yu baree baree bari tey jàpp ne kenn ku nekk ci ñoom macha allah mujtahid la euh, ñaari xadis ñetti xadis lay mokkal bu bëree ba fukk euh, xanaa ñaar fukk ba téeméer jàpp ne léegi moom euh, déglootul kenn loolu erreur la fii mënta ñàkk ne ki nga xam ne yeggut ci martaba xam-xam boobu ñu doon wax moom day topp ndoor lan lay topp ndoor ndax day tënku ci ab mazhab ne man daal mazhab sàngam laa nekk euh, lu lu ca génnee wér naag man waaw lu ci génnee wér naag man lu wuuteeg moom dama jàpp ne wérut kon man sama mazhab rek mooma tënk déedéet boobu wérut bii moom itam du dagan du dagan nit ki dafay bàyyi xel ne xamut attey diina te manta woote ne kii ko doy peeg na xam-xamu diina kii ko doy peeg na xam-xamu diina déedéet amul kenn ak fu daraja mën a toll gannaaw yonent bi sallallahu alayhi ku xam ne léppi diina dajee na ci moom moo tax yonent bi sallallahu tënkoon na ko ci kàddu gu bu gàtt gàtt gàtt gu xam ne guñ war a dégg la bu baax a baax alxayru fiya wa fi ummati waaw ah. fiya bu dee moom xam yiw yëpp xam-xam yëpp daje na ci moom waaye nag gannaaw moom moom fii ummati yii la waaw ci xeet wi lay nekk waaye duut benn farde bu xam ne léppi xam-xam daje na ci moom euh, foofu ku mel ne Ibnu Qayyim rahimahullah daf ci wax ci téere bi tuddee al amru muwaqqi'in mu ne du ñàkk ku wax ne euh, gannaaw jamono yu njëkk yi euh, xam-xam war na mën a daje ci kenn ku xam ne dana nekk dellukaay mu ne déedéet ak fu dayoom ci xam mën a yegg mënta nekk dellukaay mu ne xam naa da di wax ne euh, xam-xam yi ñu njëkk yi yëpp daje nañ ko ci ay téere waaw kon kay ki nga xam ne fi ne moom mu ngi eh, daje téere yëpp yemb na fa moom kon kooku mën na dellukaay ci xam-xam ci lépp mu ne déedéet ndax même lañu ne daje nañ ci téere yi ñaata lañ bàyyi ñaareel ba téere yooyu dajee na waa ji dajale téere yëpp waaye ndax genn wàllu téere yëpp sax peeg na ko jàng na koom déet su jàngoon sax téer yooyu yëpp ba mu jeex ndax peeg na ko ci xelam pour man di ci dellu toujours di ci delloo nit ñi tontu bi mooy déedéet kon ki nga xam ne alawaam soriwut kooku day roy man na nag ne ci mazhab sàngam lay roy waaye du wax ni ca loola lay tënku lu koo ko wax mooy dëgg lu koo ko wax moo wér lu keneen wax ku dul moom du dëgg wérut loola moom du dagan mën na dem féeg ci masala masala ba lu dul mazhabam wax na ca leneen lu xam ne moo gën a wér la ca mazhabam wax wala sax ma ne moom moo wér la mazhabam wax wérut bu boobaa dafay dagan mu toxu ci euh, la beneen mazhab ba wax parce que mazhab mooy lan baatu mazhab ci boppam lañ war a définir mazhab mooy jëmuwaay jëmuwaay buñ ne jëmuwaay nag nit ki bu jëmoon kolobaan mooy mazhabam bu jëmoon ci géej gi géej gi mooy jëmuwaayam loolu ci baat maanaa bu yaatu bi waaye bu ñu ko indee ci wàllu fiq wàccee ko foofu jëm diw sàngam jëmuwaay bi mu jël ci àtteeb masala bi mooy nangam ndax man damay tënk sama bopp nag ci ne diw sàngam mbooleem masalaay diina yëpp jëmuwaay yam ca tànn ca laa tënku du ma geestu ndeejoor du ma geestu càmmoñ damay mel na fas wu ñu takkal ay lonet déedéet ndax nag damay jàpp ne man damay dem ak sama bopp ci kemtalaayul téeméeri xadis téeméeri xadis ak juróom fukki yi ma xam ñaar téeméeri xadis bu doon junne xadis ndax damay dem ak sama bopp rek dootuma geestu kenn ci borom xam-xam yi nañ déggee mbir yi déedéet damay nangu ne damay tënku ci aayab fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamun laaj leen borom xam-xam yi dem xamuleen leen la gaar lu nekk ma war caa jëf euh, su ma tànnoon mazhab ne ca lay dem moom lay àndat ci jëmuwaayam loola du firi ne jëmuwaayu keneen su ma fa fekkee lu wér du ma ko jël su ma fekkee lu wér ne wéradi na ci sama jëm waaye du tee dama koy jël yi ñaar moom du dagan waaye nag euh, fedd géewu moom ak sa jubul bopp ci ku àggut ci daraja mujtahid kooku du wér alhamdulilah macha allah imaam mu mel ni wax dëgg yàlla leer na nañ te alhamdulilah mbokk yi dinañ si jëriñu kon ni ngeen ko xamee rek mbokku téléspectateurs yi daanaka ñu ngi waaj a jot suñu cappaandawu jàngat waaye al imam rek ci laaj bi nga xam ne amaana moom mu euh, topp ci laaj bu mujj mooy yaa ngi koy leeral léegi ki nga xam ne moom dafa jël dafa ni kat man kat dama fas yéene nekkee ab daay fi sabilillah maanaam woote jëmee si borom bi mm-hmm. moom ban importance la am ci moom ngir mu war a géeju ci xam-xam bi ñuy wax alfiq wallahi eh, nit ki nekk na daaya firiwut ne nekk na faqih doonte nag ca doon dàq parce que eh, nekk daaya te mooy nekk wootekat jëmale ci yàlla subhanahu wa mooy ki taxaw ci ni ko yàlla waxee wal takum ummatu yad'una ila al xayr wa yamuruuna bilmaaruf wa yanhawna an il munkar na am ci yéen kuréel bu taxaw taxawaayam ñetti mbir lay doon woote jëmale ciw yiw digle lu baax tere kon kooku bu fekkee nekk na faqih moo gën waaye nag li muy woote ci boppa moom baatu fiq dabaat nañu fiqhu daawa moom na ko am na am fiqhu daawa fiqi euh, faqih bala ñu doon wax mooy fiqhul ahkaam kii nag day ne day woote kon lu bon bon bon bu amut fiq ahkaam it fiqhu daawa moom na ko am mooy li ma noon nit jullit bi la muy taxawee moom na ko xam bi maanaam kon yiw wa muy woote na ko wóor ne lii yiw la wu yàlla ak yonentam saxal ne yiw la bum jàpp ne nàngam yiw la parce que dama ko miin wala dama koo rafetlu wala dama koo nàngam na ko wóor ci dalil yu leer nàññ ci alquran ak sunna ne lii de aw yiw la du safaan ndax bari na ku bëgg yiw di sonn ci mbir jàpp na yiw la da ñaax nit ñi ci mbir mooma jàpp na yiw la te fekk du yiw ci misaal bu ma ciy joxe rek Abdullah ma Mas'ud radiyallahu anhu ba mu fekkee gaa yee ci jàkk ja am ku toog ku toog naan leen wax leen subhanallah nangama ñu wax na mu ne wax leen alhamdulillah nangam ñu wax allahu akbar nangam mu ne leen yéen di benn ci ñaari am na ëpp ngeen xam-xam saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala indi ngeen biddaa bu mag yonent bi ay yëreem ràppagut daraam demagut ngeen bëgg sos ci ne ñu ne ko ah abu abdurahman ñun de li ñuy def jubluwuñ ci lu dul yiw moo ne leen ak bari ku nam yiw te dajewut ak yiw kon euh, ki nga xam ne dafay woote jëmale ci yàlla baat bi di euh, yadoona ilal xayr na xam ne lii xayr la mu woote jëmale ci xayr booba waaye bu ko wóorut si lu mën a layal ci wax yàlla ak wax yonent bi na teelu naka nun ñaareel ba amru bil maaruf digle njëkk euh, njëkk boroom xam-xam ni ñu ko xamle mooy lépp lu xam ne nit ñi bokk nañu dëppoo ne lii de lu baax la te fekk loola wuuteewul ak atte charia bal charia daf ko digle loolu mooy lu njekk moo tax lu tax boroom xam-xam yi tënku ko ci baatu te mu dëppoog charia parce que jamono mën na yàqu nit ñi seen gisin yàqu seeni nattale yàqu ba ñu bokk dëppoo ci ne lii dee njekk la te du njekk bu ma joxee misaal bu gàtt rek léegi ñaata milliers ngay fekk Sénégalais yu toog ka ñëw jigéen tàllal ko loxo mu delloo loxoom kooku la ñu jàpp moo def lu ñaaw ki ñëw jigéen tàllal ko loxo mu jox ko loxoom euh, ñu jàpp ne moom mooy ki def njëkk ndax rusuloo ndaw si toroxalu ko kii dafa toroxal ndaw li daf ko gàcceel kon taarufu naasi ala cheyin rek du doy nit ñi bokk dëppoo ci nangam ne lii lu baax la lu rafet la loolu taxut mu dal di nekk njëkk fokk diina sharia cautionné ko ñaareel ba tere lu bon na ñetteel ba kon tere lu bon tere lu bon it kii woote dafa war a nekk faqih ci loola tere lu bon moom xam-xam yi dañu ne dafa seddale ko ci ñeenti xaaj lii lu bon la kenn werante wu ko su ma ko teree it dana fi jóge kon danga war a tere waaye kon bu nekk lu xam ne jullit yi ci seen xam-xamu diina dañu caa wuute ñi jàpp ne lu baax la ñuy jàpp ne lu bon loola sañoo caa digle sañoo caa tere waaye lañu ñu dëpp bokk xamal euh, ci diina ne lii lu bon la suma teree mu dëñ kon damay war a tere ñaareel ba lii lu bon la xam naa gaa suma teree du dëñ ba jeex waaye dana wàññeeku ci ni kon ba tey dama war a tere ñetteel ba lii su ma teree lu bon la de ñu ñëpp d'accord nañ waaye su ma teree ne du fi am man na fee ñàkk am waaye lu ko gën a bon mooy wuutu foofa dafa xaraam nga tere bàyyil noona euh, misaal euh, bu ci eh, ibnu taymi rahimahullah dund te ibnu qayim nettali ko ci eh, téere mu ne eh, jamonoy tataar mongol yi yee attaqué woon l'islam eh, Ibnu Taymiya dafa ànd ak ay gaayam ñuy eh, romb ab groupe ci tatar yi ñuy naan sàngara moo bëgg a jëm ci ñoom Ibnu Ibnu Taymiya ko foo jëm mu ne xanaa gisoo cheikh bi ñu leen def lu xaram li sàngara la ñuy naan mu ne ko wàññeekul ñii buñ naanut sàngara ñu ngi jalgati jigéeni jullit yi wala ñu ngi rey bakkan yi wala di jël seen doom yi kon sàngara soxlaal leen ba dox seen digganteeg ñu bañ a dem ci lu gë eh, lu gën a garaaw lu gën a nekkuk lool loolu mooy mooy xikma waaye du tere leen sàngara ñu dem ci yu gën a gën a bon yi mu ne yàlla subhanahu wa buy teree sàngara dafa wax yi tax eh, mu tere ko Euh, ne euh, dafay dox seen diggante lan dafay jëmbat ak nooneer moom innama yuridu sheytaan an yuqa baynakum al adaawa wal baxda fil xamr wal maysir wa yasuddakum an zikrillah wa an issalaa kon yu baax yii di zikrullah ak salaa yu bon yële di nooneel ak bañante moom lay jur ñu tere ko nit ki kon daf koo tere lu baax li su fekkee nag yow boo ko ko teree tey lii lu bon la woon waaye ci lu ko gën a bon la jëm du dagan nga tere ko mu des nag ñaar kii ñeenteel bi foofu borom xam-xam yi dañu ne eh, al alimu yajtahid mooy lan mooy lu bon lii su ma ko teree dana fi jóge waaye nag lu ko toll moo koy wuutu euh, foofu am nañu ñu wax ne carrément kon bul tere bàyyil am nañu xam ne nag dañu ne borom xam-xam mooy def ijtihaad ci kaa bu mel nii kon euh, wootekat bi fiqhu daawa moom daf ko war a am waaye euh, fiqhul ahkaam maa ngi dellu ne bu booba ak lum néew néew fardu ayni moom na ko xam Euh, kon nekk daaya tekkiwut nekk mufti nekk wootekat tekkiwut nekk ab mufti nit ki mën na di woote ndax woote rombut tegtal nit ñi lu baax xirtal leen ca tegtal leen lu bon moytu ndeku leen ko man daa ilaa hudan kaana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu laa yanqus zaaka min ujurihim shay'an man daa ila dalaala kaana alay min alwisr ila axirihi ku woote jëmale ci njub dana am tiyaabo am tiyaabooy képp ku ko topp ca loolu te du wàññi seen tiyaabo dara ki woote jëmale ci cànkute dana am bàkkaaram ak bàkkaar ko ci topp te du wàññi ci bàkkaaru ñooñu dara kon moom tegtalekat la du ab àttekat benn boroom xam-xam daa ne nahnu duaat walasna bi qudaat waaw ah, nous sommes des prédicateurs mais nous ne sommes pas des juges waaw ah, loolu euh, wootekat bi daf ko war a bàyyi xel kon euh, du ñu conditionné ne ku nekkut faqi warta woote waaye nag war na caa niitu waaye nag woote gi mu nar a métier woo moom war naa nekk war naa xam fiqu daawa wallahu aalam macha allah imam mu mel ni kon euh, liñ si toftal rek mooy kon yan conseil wala recommandation wala ndénkaan nañ ko mën a tuddee moom ngay jox ñii nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yoonu sàkku xam-xam waaye rawatina xam-xam bi nga xam ne mooy fiq alhamdulilah xam naa ndénkaane la may joxe de sama bopp laa jiital mooy balaa dara nañ jiital ragal yàlla nañ jiital ragal yàlla ragal yàlla nag buñ ko waxee dëggantaan mooy lépp lu mën a doon la jey jur ngërëmal yàlla ñu bàyyi xel taxaw ci na ko yàlla digle lu ciy jur mbugalum yàlla ñu bàyyi xel sori ko ca na ko yàlla tere lu nag bu boobaa du mën a am lul ba te ñu xamee ne lii ndigalul yàlla la xam ne lu ñu war a def la ñu xam ne lii tere bi yàlla la xam ne lu ñu war a bàyyi la kon loolu li muy firi mooy la xadis ba waxoon ne sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit euh, su ko defee ragal yàlla googu jiitu ñu koy contrôler ci lépp lu mën a doon ci lu ñuy jël wala lu ñuy bàyyi danañu may ñu xóot ci xam-xamu fiq ci xam lu ñuy bàyyi ak lu ñuy def euh, danañu puus ñu xóot ci xam-xamu fiq pour xàmmee yu dagan ya ak yu xaraam ya yu baax ya ak yu bon ya yu rafet ya ak yu ñaaw ya euh, waaye ñu xam ne xam-xam dañ koy jàngee ca ña ko xam xam-xam dañ koy jàngee ca ña ko xam euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam le ne borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi yonent yi doonuñ leen di eh, doon doonuñ leen dirham doon doonuñ leen xaalis waaye liñ leen doon ne mooy xam-xam loolu lañ fi bàyyi pour ñu war leen ko doon ne ku ca jël nag kooka am na cër bu duun kon nit ki dana garaaw lool mu ne moom ci téere yi lay xuus rawatina tey romb nañ sax téere yi waaye euh, Cheikh Google la ñuy dem luñ fa fekk delli tibb kooku moom euh, ni ko boroom xam-xam yi tuddee taxa taxankatu guddi la mën naa dajale ay matt yu bari waaye moo laxasaale jaan ca biir ti yëgu ko kon bu fekkee ne dañoo bëgg a xam sunu diina nañ dellu ca ña nga xam ne ñoom la ko yàlla xamal ñu sàkku ci ñoom xam-xam la gën a néew ca njëriñ lañ cee am mooy ki nga xam ne sàkku nañ ci moom xam-xam lam ñu joxoon même bu dee njuumte ñun am nañ lay fa yàlla ndax def nañu fasalu ahla zikr waaye nag su fekkee ne dañu fa ne tegg borom xam-xam yi jàpp ne euh, man nañooy demal sunu bopp loola moom nit mën naa dajeeg lu jub sax mu nekkal ko bàkkaar moo tax kon damay ñaax ndaw ñi ne bëgg sunna lu baax la bëgg ñoñ sunna lu baax la waaye balaa ngay bëgg mbir wala nga bëgg ña ca askanu fekk xamal mbir ma d'abord te xam nag innama al ilmu bi taallum wal fiqhu bi tafaqu kon fokk ñu nangoo jàng fekk ñu nangoo nand diina ce balluwaay ya nga xam ne ca dañ koy nandi ci suñu réew mi alhamdulilah yàlla subhanahu wa taala def na fi ay borom xam-xam def na fi ay eh, dongo yu góor góorgóorlu itam ci xam-xam ñu xam ne kuy toog ci seeni jataay eh, man nga jël lu bëree bari waaye li may dénkaane mooy nañu fexe xam jataay yi ñuy jàngale ay téere nga gàddu sa téere sukk ca kanam borom mu tëralal la téere bi yaag say morom fu ngeen ca gagee laaj ko ba téere bi jeex lu mu far ak lu mu farut yëpp man euh, da nga ko xam te itam bu amee lam farut ca la téere bay waxit jombul mu lekk leeral la lu tax faru ca amma dem di toog di déglu ay waxtaan kese kese kese defu nit borom xam-xam ndax nit ki ay euh, conviction am rek la lay kii la lay gaaral waaye lu wuute ak conviction am ci mbir yi Euh, du bokk ci conférence ba du bokk ci leneen la te amaan na bari lu xam ne wuutee naa conviction am te fekk mu wér comme ni ma ko waxee woon léegi kenn peegut lu wér lépp kenn peegut lu wér lépp kon nañu nangoo jàng nañu nangoo jàng nañu nangoo jàng njàng nag fokk mu ànd ak coono fokk mu ànd ak déglu fokk mu ànd ak laajte fokk mu ànd ak nafar yal nañu yàlla yombalal loolu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillah mbokku téléspectateur Fafa TV yëpp egsi nañ ci suñu jeexitalu jàngat dañuy dellu di santaat suñu borom ci wërsëgal gi moo ñu wërsëgal ba ñu fekkee jataay bi di ko ñaan mu barkeel suñu jataay bi te lépp li nga xam ni moom la fi imam wax mu nekk lu ñuy jëriñ te mu nangul ñu ko sellalal ñu ko kon al imaam dañ lay jox nga joxe sa kàddu gu mujj rek nga tëjal ñu jataay bi alhamdulilah euh, xanaa li may baamtuwaat ci kala tegtaloon euh, jàpp ne ku xam la déedéet kuy faraatu la euh, ba tax na kon jàppale na paraat nit mën na paraat la mu for lépp di gerte waaye mën naa paraat fekk am na yemu for yu xam ne ay siddéem la am na yoo xam ne ay sump la mu dugalaale ko ci paraat ma te yëgut ko bu boobaa dañuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala luy njuumte sunu wax yàlla nañu ko yàlla eh, jéggal lépp lu ci xam ne jub na yàlla nañu ko nangul te tàggat ñu ñu jëfee ko mu musal ñu ci ñi nga xam ne dañuy wax te seen jëf wuute ak seen wax waaye nañu boole ca ña nga xam ne dañuy wax lu jub jëf lu baax mu nangul leen ko wa sallallahu wa sallam wa baraka an nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi